chers téléspectateurs comme ni ma amee habitude di ko def vendredi bu jot neena leen confrontation da leen indil euh, ndaanaan ndaanaan boo xamante ne ràññee nañ ko ci originalité am ak créativité am ba tax na tey dama ñëw euh, bàyyi leen dama leen di bàyyi ngeen déglu son bi ngeen xam kan laa dalal tey ci plateau confrontation léegi léegi lay doon. ok dégg ngeen li ngeen xamante ne moom ngeen dégg léegi kon kenn dootu ko présenté Sénégal émission bi nag balaa may ñëw ci invité bi dama koy ànd ak ñi nga xamante ne à chaque fois nee naa leen ñoom lay dooleel Euh, ñoom ñooy futur tey ñoom ñooy suba incha allah euh, muy ki nga xamante ne moom mooy Big Taf Big Taf maa ngi maa ngi lay fay bijou maa ngi lay fay bu baax a baax confrontation bu ñu délocalisé la. boo xam ne day dox. Hmm. ñu ñëw fekk ndaanaan fekk une grande star osons le dire. Hmm. ñu war a waxtaan moom ci lu bëree bëri tey. Hmm. waaw tey confrontation bi euh, Sénégal yëpp ñu ngi ko doon waaj. Euh, am na tey Big mm-hmm. Taf euh, diñu dinañ pëtaxlu aussi mm-hmm. nuyu ñi nga xamante ne nekkuñu fi woon à chaque fois chaque vendredi da nga leen di gis ci émission confrontation mais tey nekk fi ak ñoom mm-hmm. ku ci mel ni Thiat ku ci mel ni Biggi ah ak ñoom ñëpp wax dëgg yàlla tey organe de presse yëpp waroon nañ ñëw ànd ak ñun ci émission confrontation bi mais nag euh, wax dëgg yàlla situation oblige ba tax na tey damay bàyyi Papa Thione mu nuyoo ah jàkkaarloog waa Sénégal nuyoog waa 2STV parce que dañ la seet si tey ci émission confrontation new style style bu particulier boo xamante ne Pape Thione rek moo ko am. waaw merci beaucoup kontaan ci déplacement bi de façon comme je l'ai toujours di 2 sama sama kër la su ma fàttali ko man maay artiste bi njëkk a enregistré studio 2000 booba temps xam naa ne. maanaam yaa ngi nàmp biberon. <laughs> Eh, loolu ban année la. yàgg na yàgg na loolu loolu yàgg na boobu temps ñoom eh, ñoom El Hadj Ndiaye ngi soog a jóge Suisse foo ko fekk mu sol lay sol rek xam nga madame Ndiaye ndeysaan nekk xale bu tuuti <laughs> ah fu fi njëkk a enregistré man ak euh, ndem si yàlla Issa Sissoko mm. ak euh, Pape Bass euh, ndeysaan bi nekkoon super jamono. ak euh, Jimi Mbaye waaye Jimi Mbaye dama dama defoon benn ba sélection ndeysaan nii rek ak benn tubaab bu tuddoon Sepp Mayer je pense moom tam génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm comme suñu grand Issa Sissoko yooyu jamono ndeysaan euh, euh, musique bi amoon na fu mu féete woon El Hadj Ndiaye nag amoon ci benn pàcc boo xam ne Euh, il était incontournable parce que lépp looy def il faut que boo ko deful felentam il faut nga def ko ci këram yàgg nañu nag te moom moom nag mu xam ko mhm. jox ma cër boobu aussi euh, ba tax na am na ndeysaan benn occasion boo xam ne daf ma fi bett dat may tuddee làmb ju rëy làmb ju neex sax mhm. ba tam mm, bi ma yàlla def tegee ci nga woye woon bantamba bi non après léegi nag bi ma yàlla tegee tam natt boobu lépp lu mu daan wax ba mu nekkee màkka dama ko sànni ay ñaan jot naa ci donc Mariam njaay moom sama jigéen la sama rakk la sama lépp la wax dëgg yàlla moom tam ku yàgg ci teen bi la mais balaa ñuy ñëw ci euh, li nga xamante ne moom mooy Papa Thione Euh, nattu bi et des trucs comme ça ak détails yooyu yëpp euh, damay ñëwaat si euh, Thionsek Thionsek vous êtes artiste auteur compositeur tey jii connu à travers le Sénégal wax dëgg yàlla la musique votre métier tey ñu ne Papa le paro le parolier qui reste incompris toujours incompris vous en dites quoi exactement incompris je ne comprends pas parce que bon peut-être euh, incompris par certains, mm -hmm. mais bien compris aussi par certains. Et mais si je parle en parabole, en quelque sorte En parabole, donc euh, je ne comprends pas. Bon, si je, je suis incompris, ce n'est pas de par mes chansons, mm -hmm. mais peut-être c'est de par mes revendications. Mm -hmm. De par ta communication De par ma communication. Qui heurte parfois waaw mais de façon li sama papa jàngal mooy euh, gone soo bëggee mu dégg li ngay wax ba jaaral ci digg bi n'est-ce pas bon am na ñoo xam ne ils moom bien compris mm-hmm. et puis fii xam nga ba Sénégal li ko yàq maslaa bu bari kaas bi dafa toj mm-hmm. nee leen kaas bi toj na point barre mais dafa mel ni dof bi nekk ci kër gi mhm. di rakk ci boroom kër gi waaye xel mi neexul dañ ko war a yóbbu fa ñuy yóbbu dof yo ñu faj ko waaye dañuy bàyyi ba dof bi dóor nit def jéyee ci kër gi mhm. jéyee yoo xam ne sax doo ko mën a tudd mhm. parce que li may wax nii histoire la bu réel mais dafa tegguñuwul maanaam ba dof bi dafa def lee de n'est-ce mais ñu soog a naan wuy sama ndey mhm. alors te buñ ko yóbbu woon faj ko mais amul problème alors xam nga hypocrisie bari na lool nag ci dëkk bi di wax loo xam ne gëmoo ko man lépp lu may wax moom laa gëm. Mhm. mais papa mais est-ce que bu ëppee gars duñ ne paa bi dafay wax noonu rek pour am avoir envie de parler tout simplement parce que bu ñuy xool papa Thione trop de revendications et parfois c'est dur est-ce que gars yi du ñu jàpp ni tam Papa dafay dafay daf koy neex muy wax noonu rek. man amataan boobu man je dis les choses telles qu'elles mhm. te Papa mosul kaasal boppam. Mhm. jamais. Mhm. damay kaas pour l'ensemble. mais bi ma demee ba ensemble bi nga xam ne moom laa doon kaasal te li may kaas dëgg la. mais ñoom bu ñu toogee du ñu ko wax pourtant damay dégg ñu naan benn damay dégg ñu naan li mu wax dëgg la mhm. te man rek maa koy wax ba mu demee ba yàgg laa ne bàyyi naa ko léegi léegi ñoom nu nañu ñëw di wax ko man ku ne nekk fi sa bopp ba benn <laughs> ba tey xam nga Big euh, ay jamono ci ginnaaw mhm. euh, j'ai tourné avec Souleymane fay mhm. euh, je lui di je lui ai dit que euh, je lui ai la question qu'en pensez-vous de la musique sénégalaise lan nga xalaat ci musique sénégalaise bi m'a répondu la musique sénégalaise n'a pas de pied. c'est-à-dire. moom moo ma tontu loolu ne ma la musique sénégalaise n'a pas de pied euh, ma dellu tontu ku ne ko est-ce que yéen ñi nga xamante ne yéenay racine musique sénégalaise bi amu leen ci part de responsabilité tey jii yow lan nga xalaat ci musique sénégalaise bi. man je pense que la musique sénégalaise n'est pas soutenue xam nga projet bi mhm. dama bàyyi la musique sénégalaise de A à Z mbalax meeg tama yeeg cooli yeeg leket sax dugal naa ko ci mhm. tur ko ko tàkk tur ko ko tàkk tur nga di ko dégg bu baax mhm. mais ñi woy ñëpp ci musique bii la ñu woy Et pourtant, on disait qu'elle inexportable. man j'ai voulu prouver le contraire. est-ce que yéexoo ko def. non du yéex ko def c'est que projet bi tam mu ngi soog a jot. xam nga tam euh, yàlla lu mu namm mu am. Mhm. te ci moment ba ba mu koy namm lay amee. projet bi mu ngi soog jot. mais est-ce tamit projet bi tamit Big Taf tey jii Papa Thione ku ne xam na ne que Papa Thione légende la Papa Thione dootu fi prouvé fi mu ne nii euh, à 64 wala du 64 ans. juumuloo de doom. Ah, lan la war a mën a prouvé. dara amatuma kon Papa Thione est-ce que projet bi tey jotul woon nga jël jox ko par exemple. Euh, euh, jeune talent yi nga xam ne ñoo fi nekk exemple ku ci mel ni Wally ku ci mel ni Sidi Diop ku ci mel ni ay Pape Diouf ku ci mel ni artistes yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñu nekk artiste jeune. wax dëgg yàlla nekk seen diggu nënd Papa Thione dépassé na jamonoom pourquoi projet bi joxoo ko ñooñu nga coaché leen nekk ci ginnaaw. est-ce doon woon gën a gaaw. man nag xaw moo ne ko yow nii nga soxare ah. ah. bisu. Papa la question la bisu benn bisu boobu. bisu nga xam ak bisu. non non non non eh. càkk te génn génn yow ma ne. yow man dinaa defar sama projet pendant cinq ans. doo ko jox booy ñoo xew di. joxuma ko kenn sama bopp laa koy jox. mais mais papa yow amatoo looy prouver. defuma ko pour prouver. léegi da ko def pour lan. dama ne. Mhm. man je prépare ma sortie. Mhm. waaw. une sortie bi préparation bi yàggul. moo tax papa coon nga wax. Mhm. j'ai fait quarante cinq ans de musique. lépp lu xale yi woy way nga ko pare. non fekk nañu la fekk nañu ma woy ko xoola ba toog fa. waaw kon léegi lu xanaa kay. dañuy xaw a changé tuuti paroles yi jàdd fa nangam nangam nangam nangam Thione Seck woy na tout. loolu kenn weranteetu ko. d'accord mais bu fekkee ne man damaa ngi def sama projet pour def une sortie honorable ah, en def ko en pompe taw yi ko ba mu dang dugal ci nawle afri africain yëpp nga naan ma jox ko xale yi fa ma jox xale yi. <laughs> lu ma xale yi jox man. <laughs> mais Pape Thione tey yow yaa war a mais Pape Thione xam nga dama ko wax léegi. Eh. yow euh, plus parolier que toi au Sénégal ça n'existe pas. tumeur neel tumeur ça n'existe pas j'ai dit. ma ne. waaw d'accord la ñuy wax noonu. waaw tumeur neel tumeur. waaw tumeur waaw acaba plus parolier que Pape Thione au Sénégal tumeur. waaw donc Pape Thione tey jii. amatul dara lu mu mën a prouver bi Sénégal ci way bi yow wax nga ko léegi ci sa répertoire ci la nit ñi di waaye man fi ma bëgg a mooy déjà gis nañu projet bi projet bu riche la même sax dégg nañu parfois nga koy expliquer ci yenn plateau yi ngi dem alors am na ñenn ñoo ci invité ñenn ñi say doom lañ ñenn ñi say sët lañ ñenn ñi itam nekk nañ ci milieu musique bi nga xam ne euh, ñu bëri dañuy dañ la def idole mais est-ce que yaakaaroon itam ni projet bi war a riche moment bi war waruloon waruñoon am des choses yenn morceaux yoo xam ne ñu war nañ war nañu mën a découvrir ne fii nga jëm mais nga dëxëñ ko nii ñëpp di laaj qu'est-ce que cela veut dire ayu ko sans prendre du temps. yàgg na nëbb na da ngay gone. xam nga xam nga eh, mag du mag du dawal mbege papa coono ko way duma togg sama projet bii ndànk ndànk bëgguma kaani gi ëpp bëgguma soble si tam ñu ne dafa manqué wala vinaigre bi eh, eh, jéggi dayoo mhm. ma di ko defar ndànk ndànk di ko yàkkamti yàkkamti goo xam ne su ma ko yekkee ñu ne moo ndeke moom li la wax. mais mais père xam nga tey euh, doguma la. Euh, xam nga li nga expliqué léegi nii dafay jàngale ba tey que ni euh, certes ci jeune talent yi patience bii nga wax nii amatu fi mais tey sama question xaw ma ndax comprendre nga ko exactement. bii je comprendre naa sa question bu baax su soo ma nee amatoo dara lay prouver Sénégal. lu tax jëloo. projet mais Pape Thione tey bibliothèque nga. man héritage la ñu soxla. ma ne man weesu naa bibliothèque. amul beneen mot bu nekk ci ginnaaw bi pour pour juste création d' emploi lay doon jox ngeen jox euh, lu ci mel ni sa doom yeeg jox ñi nga say xarit dañu ñu woy ma ne hmm. bu leen wàcc yoon bi Papa Thione Papa Thione prépare sa sortie honorable ñan nga invité ci ci ci projet bi ak ñoo bari trop bari na ay sénégalais ñi nga tollool jamono mais non ñi nga tollool jamono loolu laa bëgg a xam déjà ah. yow ñu ngi soog a jàkkaarloo absolument dégg naa ñu lay woowee big taf. Mhm. xaw ma foo taf ak loo taf. d' accord waaye man ngay wax. d' accord dama ne la. waaw. y' a quatre quatre quatre quatre cinq mois. Mhm. Sénégalais yi woy ci projet bi ñu ngi woon ci trois cent cinquante deux et quelque. Mhm. d' accord léegi romb nañ ko di dem. xam nga lan mooy sama problème. projet bii ak diisaay bi. Mhm. yàlla rek lay ñaan mu may ma. Mhm. ñu bokk ko fekk ñu ñëpp ba ñu ne ah léegi nag mu ngi waaj a jeex parce que durée bi sept la. d' accord léegi man li ma bëgg xam taxaw càkk ci gin gin. d' accord durée bi sept la. xam nga tax mu nekk sept ans. Mhm. Bijou Ngoné woy na. Bijou Ngoné a droit à trois clips. léegi boo waree jël un mois de promotion. def ko ci Bijou Ngoné. boo ko defalee artiste bu nekk sa va durer sept ans. d' accord d' ñaareel ba. Mhm. nombre de clip bi. Mhm. bi ñu koy mujjee quantifié mu ngi woon ci neuf cent soixante six et quelques. neuf cent soixante six mais mais fooy jëlee moyen boobu yëpp. ma ñëw rek. Mhm. ok léegi bu fekkee ne danga ma laaj ñan laa invité. damay commencer Euh, langue yi nga xam ne moo existé au Sénégal reconnu par l'État du Sénégal. d'accord. ku ci nekk seeni langue ku ci nekk j'ai voulu laisser personne sur la route. Mhm. bëgguma kenn ku ma ŋàññi. Mhm. alors ethnie boo jël te te ñu koy lakk fii ci Sénégal. Mhm. jël naa seen ñaar ñett ñeent woykat. woy nañ ba pare. moo tax neexaayu projet bi mooy maanaam mën nañ teg par exemple ne mois bi yëpp. mooy les grandes nuits séeréer pendant tout le mois. te yow da nga def plan de com ba pare. man dinaa ko def te te yow ñëwoo toog. waaw mais mais père père père. bijou bijou man ci projet bi ñu def ci projet bi. ma yeggale waaw mais père léegi non non non càkk te jiw jiw. <laughs> xaaral ma yeggale d'accord d'accord léegi allez-y par exemple nii euh, ñaata euh, kii langue ethnique moom am Sénégal. Mhm. mat mat na neuf neuf à mhm. léegi nag boo jëlee langue bu nekk nga woyandoo te ñëpp ay duo la ak man mhm. am na yoo xam ne mosuñu maa gis am na yoo xam ne bi biñu ma gisee ba dañoo xam ci projet bi star nga nag non man man xaw ma euh, star laa xam xam <laughs> non légende nga ok mhm. mais woy nañu parce que mosuñu xalaat ci seen adduna ne que def duo non dinañ ma gis day mhm. def jiw maanaam li ñu naan fàccu fàccu. Mhm. Mhm. face à face bay def jiw ak man c'est comme ça. ok léegi ku ci nekk maa lay guider. léeg-léeg nga traduire li ma bind. mais mot bi nga indi yow ci sa la langue dafa gudd. man maa lay man maa lay wax répéteel ma moo bi ma xool ni ma koy demee ndànk ndànk ndànk ba mu xaj ci longooru musique bi. et ça a pris du temps moo tax mu yàgg. Mhm. moo tax mu yàgg lool lool lool lool. bu demee noonu. Mhm. mënoo lu dul def ko ndànk ndànk balaa muy am erreur. sama naataango yi ngay wax. waaw mooy ñi nga tollool jamono. ñoom ñëpp ku ci nekk. Mhm. kenn na ci pare gu mu muy Ismaïla moom pare na ay version mais ni ma ko jële ku ci nekk dama lay jox sa cër. Mm. Ismaïla Lo albumam dafay ànd ak neuf artistes yoo xam ne kenn xamu leen mm. moom mooy nekk seen parrain mm. ok Baba Maal ñëw na fii toog ne na ma yow lay xaar nga su ma defee signe je suis prêt moom itam dama koy tànn neuf artistes moom mu nekk seen parrain Youssou Ndour waxi noppi keneen ak keneen ak waxi noppi ñi ma ñi nga xam ne ñoom laa euh, maasandoor ba ki laa moom euh, def na benn parti mhm. mais ñooñu ñëpp dañ ciy dugg temps yëpp sama communication xam mooy lan. Mhm. damay woo Omar Pène. Mhm. Kiné Lam Baaba Maal Youssou Ndour Ismaël Lo Kumba Gawlo euh, Fatou Guewel suñu jigéen yu baax yooyu. man ne leen man de ci sama gis-gis dama jàpp ne boo déggee daaj. comme ni nga koy waxee. jullit bu dund 63 ans. Mhm. bu ko rombee lu mu ci teg bonus la. Mhm. te bu déggee daaj dina xam ne moom mu ngi ci suuf si. Mhm. ndax dund jullit mooy 63 ans. ndax nga ngi mi def. 63 ans la dund. man loolu laa gëm. man leen nag ku nekk bind dara ñu bokk woyandoo mu am ay version yu bari ñu bàyyil ko xale yi. xam nga xam nga li may wax sànq rek Big Taf mm-hmm. euh, peut-être que les gens ne comprennent pas Papa Thione mm-hmm. euh, mais tey li muy expliquer nii xam nga pour lan mu baax tey jii ñoom dafa am lu ñu fi tey jii lii euh, yàlla na yéex Papa Thione du ne bàyyi duñ ne bàyyiw fi dara pour xale yi mm-hmm. tey xam nga parfois buy booy dem de approcher nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi on a du mal à les avoir parfois ci plateau yi tey jii ku ci mel ni Ousmane Tanor Dieng Euh, yàlla na ko yàlla xaare àjjana jóge na fi mais defuñu benn biographie ci moom amul lenn loo xamante ne wax na ko fexe pour mu bàyyil ko jeunesse bi te yooyu yëpp c'est des ay échec la yoo xamante ne dañ ko war a éviter donc no mais projet bi euh, man baal ma Bijou mhm. yaa ngi wax lu lu am solo mais ku mel nii dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng moom il avait opté mhm. pour être discret mais est-ce que tey autorité yu mel noonu boo demee ba euh, di laaj baatu réew mi est-ce que foofu discrétion amati na fa. non comprendre naa li ngay wax bu baax c'est que moom il ne communique moom il ne communique pas bokku xam nga maa ngi doon wax ci internet bi ne Sénégal léegi daal man ju comp je comprends plus les mentalités. Mm-hmm. nit ñi léegi ay yu bon la wax. te dañ koy def léegi de façon très naturelle. tu comprends bi Ousmane Tanor Dieng génne àdduna dama dugg ci net ma gis ku bind enfin un virus de moi xoolal loolu yow en tant que Sénégalais un homme d'État qui qui détenait beaucoup de secrets d'État. Mhm. même boo bokkul ak moom vision wala sax d'accord leen ci ay. consentement politique wala nangam nangam la. sa moromu jullit la. sa moromu jullit la. bu hmm. génne àdduna soo ko mënul ñaanal yàlla. maandu hmm. mais enfin un virus de moins Sénégal léegi war nañ ko xoolaat bu baax a baax parce que quel que soit x Ousmane Tanor a servi le Sénégal. man defaluma dara. Hmm. mësuma xam fan la dëkk. xaw ma fu mu dëkk ba léegi mais nag il a servi le Sénégal par A ou mais mais loolu xam nga loolu mooy méchanceté gratuite bi nga xamante ne moom moo nekk actuellement dañu nekk rek juste rek ci jum jamono loolu kenn mënu ko dindi fi léegi nag moom li nga ne genre yu mel noonu moo nañ fi bàyyi dara pour xale yi bon xam nga nag bon man comme man jun ne suis pas politicien mm-hmm. non non non du juste rek du juste politicien kese. mooy mooy moom ak ñi nga xam ni itam nekk nañ même ci milieu bu ñu mën ci nekk muy maanaam musique wala politique yoon la kon projet bi nga def nii ñeneen ñi def ci maanaam ci beneen anam au moins xale yi fi nekk itam ñoom ñu am loo xam ne ëllëg ci biir mën nañ mën nañ mën nañ ko mën nañ ko xool moo tax j'ai fait appel à mes confrères mhm. ne leen nañu ku nee bindal mhm. ñu bàyyi fi dara est-ce que jotul tey ci loolu noonu nga commencé dès à système de communication parce que lii il faut que les gens comprennent que ni Papa Thione dafa nekk di def loo xamante ne au moins pour nu lii euh, kenn du ko dindi ci musique sénégalaise et nit du ko gaaw a defaat parce que tey neuf cent et quelques clips saa loolu. projet bi kenn mësu ko def dans le monde entier. Mhm. mësul am. te gëwuma ne nit dina gaaw a léegi nag nee nga ma léegi. fan la jëlee <laughs> ah, fan la jëlee moyen. gis nga moment bii. moyen ah. ñëpp muy sénégalais yi ñëpp nekk ñu ngi sànq wax nga ko nekkoon nga ci ay tolof tolof donc bu nit ñi déggee projet bi ak dayo bi mu am peut-être dinañ amaat yeneen question yi nga xam ne ñoom dinañ ko posé donc kon tungu ne du teew ñuy nataal ça serait vraiment important yow itam nga leeral ñu nga ne tungu ne du teew ñuy nataal tungu ne du teew ñuy nataal ba tungu ne de mooy lu gàtt <laughs> du teew nag mooy maanaam eh, nekk maanaam kon daal yaa ngi léegi nag doom mhm. comme da ngaa bëgg ma leeral la mhm. j'ai toujours dit partout que le projet bi man aw ma moyen yi yéene bi laa am ak tàmbali gi. d'accord te tey ci projet boobu président Macky Sall recevoir na la. waaw waxtaan ngeen ci. il était tellement fier du projet parce que xamul woon nee na nee na ma dama ko doon dégg nii rek mais bi ma ko expliqué jox ko projet bi ak business plan bi tegal ko ay version muy déglu bii bii bii. nee ma j'ai très bien compris mhm. je suis très honoré à ce que ce grand projet la jóge ci un Sénégalais te bu soobee yàlla gouvernement bu Sénégal dina ci jàpp. boobaak léegi la lañ nag après y a eu les élections mhm. ak euh, kii ki toppaat toppat toppaat. toppaat ñoo taxoon ñu xaw chaque jigéen gin yow lii après tolof tolof bi la. waaw mais xam nga après tolof tolof. non déet ci yow. mais Sénégal yi la pare. bi ni mu ak ni mu ak clip yi nga wax nii waa gars yi duñ la biyee dëgg woon. ah foofu la ñu ñëwee kat. non xam nga. Euh, <laughs> ni nga koy waxee euh, xam nga la liberté. Mhm. d'expression d'un individu. Mhm. s'arrête la où commence celle de son voisin. Mm-hmm. loolu de defe naa jàngoon na ko école. Mm-hmm. waaw donc xam nga ku nekk ak ni ngay gisee. Mm-hmm. parce que lii ay caaxaan. xam nga président te tamit studio bi allah. xam nga président Macky Sall. doo tontu. maa ngi ñëw. <laughs> ñun c'est le plus renseigné du Sénégal. absolument. il a tout il a les renseignements. mais c'est le président de la nation. dama lay expliquer rek. il a tous les renseignements. su ko wóoral ne que loolu ñu doon wax nekk na du ma recevoir mukk ci àdduna mukk ci àdduna. mais moom lui il est là pour recevoir tout le monde. déedéet c'est le de la nation ki def déedéet su ko moom xam na li xew. bu leen bu leen fàtte ne au Sénégal y a des renseignements généraux aussi yoo xam ne ñu ngi def seen liggéey bu baax moom xam na li xew xëy na ba ba jox nañ ko rapport explique ko yëpp. mais Babaton revenons si non non non xaaral déedéet kii kat doom ba. Babaton yow xaaral bi yàgg bi taf xaar leen. non non bi taf. Uh-huh. comme daal laal benn góom bu mu xoos. Uh-huh. bàyyi ñu toj góom bi ba mu jeex. Uh-huh. d'accord am ma moyen projet bi je l'ai dit. man li ma am mooy maanaam tàmbali gi. tàmbali gi mooy maanaam li ma ci dimbali ak sutur yàlla ku ma woo ne la kaay woowee nag man dooma laaj cent franc. déjà. d'accord xam nga loolu c'est un acquis. Mhm. bi projet bi tàmbalee ba léegi joxuma kenn cent francs. mais li ci gën a métti mooy studio ak enregistrement. te def nga dafa ndànk. ingénieurs yi nga xam ne ñooy enregistré samay doom lañu samay rakk lañu ñu yàgg nañu pendant vingt ans. Mhm. ba ci ki ki ki ngeen fekk tey muy Amadou Fall. Mhm. kooku nekk ak man nekk ingénieur u Ramdan pendant des années. moom day ñëw jàpp ci Papis Sané jàpp ci ak keneen ak keneen ak Papis Ndiaye ñoom ñëpp du ma ci fay kenn cent franc mhm. muy ñaar ñetteel ba studio fu mu nekk ci kër gi yaa ko moom fi sama kër maa ko moom mhm. waaw léegi nag am naa doom yu ñuy wax Wally Ballago mhm. su ma soxlaa ñetti fifteen bu dem làqat ji ko ñëw jox ma ma def lii nangam nangam di defar defar defar ba ñu agsi fii man man kat defaguma dara su ma amoon moyen projet bi kon bagage yi génn bu yàgg yow yaa gën a xam li may wax ndax dañuy jàpp dal jàpp dal ba pare pousse ko tuuti. Mhm. jàppaat pousse tuuti. Mhm. n'est-ce mhm. waaw léegi nag li ma man mooy ñu ngi monter les clips xam nga léegi son ak image ñooy ànd. parce que jamono ji moom moo moo ni toll léegi li ma man bu ñu paree ma jël benn santen sa centaine de clips dugal ko dans le net n'est-ce pas mhm. ñu xaarali su moom président Macky Sall nee na ah ñëwaatal ñëpp nañ ko yëg bu soobee yàlla ndax foofu la bagage yi génne <laughs> <laughs> da nga bëgg ñëpp yëpp ko Pape Thione xam nga tey ji euh, sànq ñi ngi wax ba dugg ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, li nga xamante ne daloon na la fi Sénégal yi yëpp compatir naka nga ko dundee woon parce que il faut ñu revenir at tey première guddi Pape Thione à Rebeuss waaw xam nga Dakar du um koo xam ne mecc ko mas na am coowu loolu mais c'est bokkul nga xam ne yàlla rek mooy yàlla temps bi ma nekkee baobab dafa am benn suñu moroom la nag ndeysaan ku bëggoon musique bëgg ay woy te mënul woy yàlla na ko yàlla yërëm moom tam ñu koy wax dem si yàlla si avocat mhm. ni ñu ko xamee man mbisaan ngom na lu dégg nga waykat bi du dumbi sànn ko léegi muy nodd ca jàkkay Mbambilor ja mm-hmm. ku mën a way mm-hmm. ak dut sec mii nekk ci lamb yi kooku temps bu ñu ñu ñoo fi nekkoon ay jeune woykat moom mu ne Gabon la jóge jamanteer la mm-hmm. yor xaalis bu bari moom woy rek la bëgg boole ma man dut sec ak mbisaan ngoom fu muy dem yóbbaale ñu par force bu ñu bañee mu mu mu mu mu fay ku ne cinquante mille cinquante mille cinquante mille. rien que pour ñu yaa koy gunge. Mm-hmm. mu nekk xale mu nekk nag ku tuuti ndeysaan. Mm-hmm. ndeke moom xaalis ba boobu mu yore mu ngi ko jëlee kër benn ancien ministre moom itam nekkatu fi yàlla na ko yàlla yërëm. Mm-hmm. alors xaalis bi franc français bu njëkk ba la. ak franc CFA moom xamul franc français bi mu ne xaalis bi baaxul dem sànni ko ca raayu tëngëj ba te xamoon ne xaalis bii mu sànni moo ëpp valeur foofu xaalis bii mu téye <laughs> loolu yëpp ñun après lañ ko xam mhm. léegi nag bi mu ñëwee euh, euh, mu may ndeysaan laay mbuub dem si yàlla defe naa ay vingt cinq mille daal may dem si yàlla si Ndiouga Dieng defe naa moom tam même montant mm. man mu may mat trois cent mille à cette époque te boobu temps mm. ñëpp naan eh, booy coon booy coon booy coon booy coon musiciens yi booy coon sama wàll booy coon sama wàll may séddale par cinq mille cinq mille cinq mille mm-hmm. dem man nag dama mas a yàgg bëgg nag sañse mm-hmm. ba mu nekk booy <laughs> non xoolal ma dem jëndi te temps boobu Euh, pantalon mille deux cent mille deux cent lay jaay coupon pour nga am ci pantalon maanaam mm-hmm. gën ci lu mat cinquante coupon ñawlu nag ay chemise maanaam yu xam ne temps boobu nag boobu bis moom boobu moom ba defe naa boobu bu juddoo ko <laughs> parce que temps boobu mooy tàngu patte d'éléphant ak taille tube hmm? ak taille tube ak dalu tête de nègre maa na boobu temps moom. non non temps yaa ngi tojal xam nga bo boobu temps moom euh, kii kiiwuloo. existé mais bis bi ñu ko jàppee ñu ne. nañ ko wax fan la nañ na leen wax fan la xaalis bi dugg. ñu jëli leen. mu muy wax ñi mu may ñëpp ñi mu may ñi mu may ñëpp ñu ñëpp la ñu jàpp. yow indi leen. te man yëgu ba tidu ba. mais li gën a bëri yow la ko jox de. d' accord naa loolu. Mhm. waaw parce que ñoo maase et puis daf ma commandé woon wa benn way ma ma ma way ko kii euh, est ce que du sëy tararaan tan tan boobu la nga. am na. léegi nag ñu jàpp ñu ñu ñëpp yóbbu laay boobu moom police lañ ko bàyyee ndax moom dafa remboursé <laughs> bu ci saa si Ndiouga Dieng defe naa defe naa je sais pas xam-xamu Ndiouga Dieng moom moo tax ba génn ci mais ñu ñëpp lañu yóbbu en prison defe naa fi deux mois. te loo xam boobu ah. te loo loo xam ne man yëguma tinuma fekkewuma fekk lañ ma may wooye rek. ñu may ma xaalis ba deux mois jeexee ñu dem tribunal man dañ ma relaxé pure et simplement ndax ba ma bu juge bi posé question dama koy dem man ak kat monsieur le juge man kat ab géwél dong man fekk nañ ma may way ñu may ma xaalis. waaw loolu lii moom nu mu demee ni man xaw ma kër kër gi buñ gi la xaalis bi xaw ma ko. Mm. borom xaalis bi day dégg naa ko nii tuuti turam ndax xam naa ko ndax ministre la. Mhm. waaye xawuma këram mosuma dugg këram nangam nangam nangam nangam ñu xam ne li ma wax ni dëgg la ma ñu bàyyi ma ñibbi. booba temps ñu ngi ma yóbbu chambre appalant 3 mu ngi tuddoon appelant 3 mhm. ay 31 ans après coowal xaalis ñëwaat. ci man ñu yóbbuwaat man même chambre ba ci papa encore ma xam ne yàlla rek moo yàlla mhm. même chambre ba bañ ma yóbbu woon fa laa nekk ay dix jours ñu soog ma transfert yóbbu ma Cap Manuel mhm. alors ma xam ne nag man am naa benn destin bu xaw a bizarre mhm. bu ñu ñëwee ne la Bijou Ngoné yow journaliste nga wala boog présentatrice d'émission nga mm-hmm. man dama am possibilité yow nga présenter ma ci cent cinq pays européens mm-hmm. ay émission mais Bijou da nga pooj bu caaxaan dama dëgg des waaw mm-hmm. léegi man bu fekkee ne man ci li may liggéey man lañ ma nax. mais est-ce que papa tamit yu. ma ñëw boobu noonu ak. nawet bi nga toll gin gin ma ñëw. <laughs> man ci li may. Hmm? bàyyi la bu fekkee ne man man ci li may hmm? liggéey. Hmm? lañ ma nax. dañoo bëgg nga tëggal ñu cent cinq concerts. dañoo bëgg bépp association gambienne boo xam ne mas naa exister. ñëw daal di koy damer le pion. gis nañu yow saa boo ñëwee Europe foo mën ne Gambien yi dañ fay fees dell ah. et puis loolu mu nekk mu nekk lu dëgg alors yow la bëgg nga daal nga defal mu suñu première tournée ma ne laa yàlla dikk na ma ne sama xel ku ku yàgg ci teen bi rek ba ba ba non bi ma nee léegi nag nañu waxaale mais yow yaay jël en charge tout billet d'avion yi yow la hôtel yi yow la lekk yi yow la transport yi yow la ñoom daal xam nga lu ñu am fay nañu ma temps maa jël charge yëpp. contrat boobu yomb na te defal leen cent cinq concerts en Europe ku ñu wax loolu. Mhm. ci ngay woy te nga yàgg fi lool. Euh, léeg-léeg mu xaw a tane tuuti léeg-léeg mu metti lool léeg-léeg nga làmb poosi dara du fa ne non da naan non léegi affaire bi jot na waaw te xam naa ne bii ñëw tam euh, mystiquement pare nañu mhm. parce que man joxe naa sama quatre-vingt-cinq millions te xaw ma yëguma sax ni joxe naa ko ci jour boobu ay six heures de temps après je me suis rendu compte que ni man. joxe nga xaalis joxe naa xaalis bi nga xam ne waaw joxe naa xaalis bi moom laa gardé woon pour génn ci ay album voilà. donc pourquoi choix wu Thione Seck taxaw rek. Mhm. yow doom càkk gin gin déggoo ma ma la kii. <laughs> léegi nag. Mhm. yéen les hommes de presse yéen a ko taw yi ba mu dang loolu xam nga. non non non loolu damay ñëwaat si. doo ñëw de. non non non man may ñëw. waaw xam nga tey confrontation Papa Thione. Euh, man ci nga wax noonu. waaw duñu du ma ko par li tax euh, confrontation format bu bees bi. waaw ma ciy invité ñi nga xam ne ñoo nekk ci presse en bi. waaw tey jii euh, tourné naa ak Ngaaka de mu ne moom coowam fi mu toll presse bee ko fa yóbbu. tourné naa ak Mbathio émission mu ne moom li ko dal presse bee ko ko teg. waaw tourné naa ak. ku ci mel ni euh, encore euh, bari na émission yow yaa ngi ñëwaat waxaat nga léegi ne coow li fi mu egsi presse bee ko fa yóbbu bi taf à chaque fois ñoom loolu mooy seen présence ci émission bi tey ñoom ñu nekk ci presse nañ la wax fan lañ teg léegi yow bi taf mhm. presse bi mhm. ñoo ne cinquante milliards mhm. cinquante milliards xajul ci benn sac am déet waaw ñu ne euh, euh, maanaam xaw xaw xaw ma nangam lan cinquante milliards. ay euro ay dollar euh, te ñoom yéen nekku leen fi. Mhm. xamu leen nu mu demee. Mhm. te li ma gën a jaaxal mooy. Mhm. bi gendarme yi ñëw. di ñëw si fii. am na ay hommes de presse yu taxaw ne ne. di ba kan moo leen. avertir kan moo leen informé. troisièmement mhm. man bu ñu ñëwee fekk saag bi ci saal bi maa ko fa teg xam nga tax mhm. bi ma gambien bi di jox avance bi dafa ne ma papa coon lii mënuma ko yore ndax man dëkkuma fi mhm. mënuma ko denc ci oto bi ndax wóorul mënuma ko def tam ci suma hôtel ndax wóorul yow mi dëkk Sénégal te yow yaa ko moom gaa yaa ngi ñëw fii ak juróom benn fan pour ngi dem ci sa avocat yi ñu sign contrat bi kon téye ko d'accord loolu nopp mën na ko dégg mhm. mu ubbi ko wan ma ci benn taxañ dama nag waaye nag moomaguloo ko ma ne ko bu ñu yorul dara tam am nañu dignité. waaw nii nga ma ko joxe nii bu sa gars yi di ñëw nii lañ koy fekkewaat moo tax ubbiwuma saak bi su ma dajji woon sax génn benn billet na ne maa ngi dem yi laa dinaa xam ne man def naa ponk lu mu déli ci nañu ma ko joxe woon mhm. noonu laa ko tege ca saal ba teg ko ca coin ba kenn du ko sax foog ne lii montant milliards yi ñuy wax mu ngi ci kenn du ko foog. d'accord léegi. Euh, je ma ñëw waaw mais mais mais. non càkk waxtaan rek waaw <laughs> ah. ah, baax na. léegi nag mhm. ba ñu ko euh, ñoom ni nga ko paquetee. Mhm. xoolal lii. Mhm. xam nga lii gisoo dara. lii gisoo dara. ci kaw nii ngay bis benn billet cent euros ci suuf benn billet cent euros ni ñu ko paquetee loxo mënu ko dindi. paaka spécial yooyu moo ko mën a dagg. Mhm. ma loxo mën na ko dindi. Mhm. ba ñu ko daggee ca gendarmerie ba laa gis ne ay kayitu Kleenex la. ba ko daggee. Mhm. ca ma toog ñu daggal ko nii. laay soog a gis ne ndekete lii yëpp. ay Kleenex la ay kayitu Kleenex la mais yéen ngeen ne ay milliards. kayitu Kleenex naka la ciy téye nit. bu caaxaan demee dë dëgg des. Mhm. pourtant am na seen benn confrère bu nekk ci benn télé. Mhm. ne moom comprendre pourquoi ñu téye Thione Seck ba léegi. pourquoi. Mhm. te pourtant moom. émission juridique lay def de. ñëpp xam ko. ci Sénégal man mën na wax trop sax. waaw muy euh, Pape Ndiaye. Pape Ndiaye bu wal fëte nee na moom. comprendre lu tax ñu téye Thione Seck ba léegi. parce que bu dajji woon sax dem. kii nangam nangam foofu lay def délit mhm. mu ne commerçant boo dugg fii boutique am mhm. bu la nëbbul am na ay faux billets parce que commerçant yëpp daan jël ay faux te xamuñu ko mhm. bu demee ba xam ko bon dañ koy dagale rek teg fenn waaw lu tax yéen la presse non seulement j'ai pas été soutenu par la presse la presse m'a enfoncé Mhm. mais est-ce que presse dinañ soutenir lu ñu xamul ñoom itam. moo tax kon waruñoo wax loo xam ne xamuñu ko. d'accord mais man fi may dikkee. non non non déet déet. waaw allez wax nga léegi wax boo am importance. Mhm. est-ce que presse dina soutenir loo ko. Mhm. waaye kon presse war nay wax loo xam ne moom la xam. d'accord léegi d'accord naa ci loolu. mais fi ma bi ñu dama koy bàyyi mu tontu parce que moom looloo ko fi indi tey. pour mu tontu man ma laaj loo wax ci lii. est-ce que presse war naa wax loo xam ne xamu ko. Euh, loolu presse amu ci droit parce que nous on est censé. wax dëgg yàlla euh, dem ci éthique ak déontologie. Euh, parce que éthique ak déontologie moom en général loolu mooy communication. waaw loolu mooy presse. Mhm. donc euh, moom mi nga xamante ne comme ni mu la ko waxee sànq tungale du teew ñuy nataal. Mhm. loolooy waaw itam euh, na ni que euh, ku ci mel xam leen de dal na ko ci. ku ci mel ni non dal dal nañu si mais man pour pour leeral pour leeral parce que déjà euh, peut-être émission bi pour Papa Thione du pour man d'accord. mais bon damay représenter presse même su fekkee animateur laa duma journaliste mais bii problème la man déjà nekk moon ci milieu boobu boobu maa ngi jàng hmm, benn hmm. beneen bi mu waxee peut-être ñoom ku ci nekk am na raison bu tax mu wax loolu. mais est-ce que façon bi ñuy relater tey yoon la. waaw mais xam nga lépp loo gis am na yoon am am na lu ci yoon am na loo xam ne du ci yoon. soo mënee euh, presse bu bu bu bu relater rek am na raison bu tax man je comprends pas. non mooy ku ci nekk moom boo ko laajee. dina la nii la demee nii la demee nii la demee. mais fekkewul. d'accord man d'accord yow yow fekkewuloo yow hmm. yow. Hmm. bi gendarme yi ñëw ci sama kër fekkeloo fekkewuloo. waaw léegi père man xam nga fu mu bëgg fu mu bëgg ñu dikki. waaw est-ce que mënuñu ne que c'était trop ci yow mi nga xam ni légende nga ci milieu bi yow mi nga xam ni en matière de de business musical xam nga ci lu bare bëri ndax boobu noonu gisoo ni yomb na à votre niveau. ba ban langage nga bëgg ma wax ak yow. non man boobu loo waxee man ma dégg la. dama la wax ne mhm. bi ma waaji ne. Mhm. saak bii. Mhm. mënuma ko yóbbu hôtel. wóorul. mën ma ko def sama ot sama sama sama oto wóorul mm. te comme sa avance la yaa ko mooma gum mm. ma bëgg nga denc ko fii mm-hmm. noo xoolal ma ne maa gën a yàq ma maa yàkkamti mu dénk ma saag bi d'accord mm-hmm. pour contrat bañ a dem mm. dégg li ma la wax maa la gënoon yàkkamti mu dénk ma saag ba doom mais mais mais mais mm-hmm. soo ma nee dafa yomb trop non dama laaj quoi est ma ne xëy na montant boobu na mu toll moo tax nanguwuma signer contrat bi à deux. waaw d'accord ci présence avocat parce que ak ak 105 yoo xam ne. la la la. montant beeku. rek. Mhm. moo tax na montant ba toll. Mhm. ci liñ ma wax ñoom. Mhm. moo tax ma ne ko nañ dem ci avocat yi ñu signé ko. parce nag bon je ne suis pas né de la am na montant yoo xam ne mën naa ko signer. je l'ai pendant quarante mais bii mu ngi soog a ne salaamaaleykum moo tax nanguwuma ko signé. nañ dem ci avocat ya ñoom ñu ne ma ok mhm. dañuy xaar seen parrain. Mhm. parce que ñu ne ma Suède mooy mooy nekk euh, euh, le pays euh, parrain bu toute la tournée. Mhm. donc ambassadeur benn ambassadeur bu Suède bu nekk foofu. mooy ñëw ànd ak ñoom. ñu dem ci avocat yi ñu signé contrat bi devant mu devant moom. d'accord li ma daal jàpp li ma mën a jàpp daal ñoom daal ils ont bien préparé. leur coup mhm. waaw parce que man je n'ai rien du tout parce que je m'étais dit que bon na comme woy mhm. na xéewal la goo xam waaw loolu normal nangam nangam ok. wax naa ko sànq. <laughs> bu ñu ma jàppal woon dafa nga ne dinaa joxe sama 85 millions ci ci nii nii nii. ci Mali gi say. <laughs> waaw léegi nag. Uh-huh. on parle toujours ci la presse. Uh-huh. mais la presse man dama foog ne ñoom bu ma ñëpp xamul itam une partie. Hmm. war nañ maa du Papa Thione tey jii euh, benn instant Papa Thione day mel ni comme si euh, li nit ñi di wax xam nga si début bi maa ngi koy Papa Thione. Euh, un homme vraiment incompris tey jii nit yu bari dañuy jàpp que ni Papa Thione xam na lépp alors que Papa Thione studio bi la xam ak quelques place yu limitées donc tey jii day wane wanewaat rek que ni Papa Thione dafa xaw a limité. dafa néewal quoi. waaw da nga néewal da nga da nga da nga da féex bu doon kii dañ naan Papa Thione dafa tëxet. jël dara muy dara. néewal dëgg la. parce que man bëgguma nit ku rëy. rëy rek laa bañ. mais est-ce que tey sa noto sa notoriété tey fi mu toll ak ni société bi comme ni nga koy waxee at at presse bi niñ la baalulee rétrospective bi nga def ci sa coow ci problème yi nga am ak tey jii problème yi nga xam ne topp na si sa famille tey jii rétrospective bi nga def. est-ce Papa Thione tey jii xaaral ñëwaat na. Euh, tey jii est-ce que moom pare ma wax xam nga coowal xaalis bi ñëwaat na année bi ci toppaat loolu c'est 30 ans après xam nga du mm-hmm. benn mm-hmm. coowal gintes bi mm-hmm. dinañ ci ñëw mais tey euh, loolu yëpp ça n'a rien à voir ak yi nga xamante ne loolu moom mooy euh, li ko amaloon problème tey damay bañ ñu ne waaw Pape Thion la éviter dafay du dem fi ñu ko war a sant non non non non je vais essayer plus professionnel possible ah. du far. maanaam maanaam pare nga pour dóor mbëkk Papa Thion. ok d' accord du ma door mbëkk Papa Thion. mais tey est ce que du tey Papa Thion euh, euh, naïveté bi nga xamante ne mu ngi nekk ci moom mooy tax lii yëpp di ko dal. waaw léegi bu bu la neexee nga tuddee ko naïveté mais man ni ma ko gisee euh, amul benn kër booy dugg. waa kër gi di ay artistes. mais tey acharnement tamit Papa maa ngi ciy ñëw amul benn kër gooy dugg te waa kër gi di ay artistes proposition contrat bu mel nii dugg fa ñu dégg ko ñu naan sax ba dañ koy jéem a delloo wala na du am amul kenn ku ñuy proposer cent cinq concerts en Europe ngay cracher là-dessus amul mm. d'accord acharnement bi dëgg la moo tax temps yi ci affaire u coowal waale affaire t-shirt bi ma wax la ma waxoon. est-ce tey loolu waroon ko wax. non non da da j'ai présenté mes excuses. ah. Hmm. non. mais est-ce que est-ce que. attends mais acharnement bi may wax. Hmm. Hmm. coowal xaalis boobu. quest que ça a voir avec mon fils Seydina Aliou. dara. deux ans avant affaire xaalis boobu moom mu nga Italie. ci école de football. bien inscrit di def la ko war ay patron bëgg ko lool ñooy am yaakaar ci ñëw na vacances mu am ay xale yu ñu jàpp yi xaw ma yëmbal xaw ma caaroy kenn ci enquêteurs yi ne ko ba tuddal doomu Thione Seck comme ça mu tudd Alioune ñu jël Alioune téye ko pendant deux mois en prison mm équipe bi envoyé benn avocat bu weex bu tal italien bu xoo weex tal ne leen Aliou mënu ci bokk parce que deux ans ngi nii mu nga Italie coow bi yoonam nekku ci génne passeport Aliou jour ba mu duggee Italie jour bi bi ñu ko bàyyee mu ñëw vacances et tout mais dañ ko tiré deux mois yàqal nañ ko carrière am mm-hmm. yàqal ko léppam gendarme boobu boobu ko def dara fekk ko ci loolu mooy acharnement pur et simple loolu en vertu de quoi muy benn qu'est-ce que coowal papa bu am bu mu amal ak ci affaire contrat bi qu'est-ce que voir avec Seydina Aliou mais loolu est-ce que du ñu dellu siwaat ci sa li nga xamante ne euh, euh, bu ñu waree du du ñu ñëwaat ci sa disco disco ci sa ci sa ci sa li nga xamante ne moom mooy discographie tey Papa Thione yaa fi woyoon du jaami borom waaye na ñongu li yem ci àcce hmm. na yem ci man hmm. man dëkku naa lu lu yu metti xëy na man mën naa ko supporter mais je reviens sur le cas de Aliou. Mhm. Aliou qu'est-ce qu'il fait léegi buñ nekkoon ci dëkk bu développé lool ñoo xam ne nekkul pays pays pays pays pays pays africain yi mhm. mais Aliou Seck dañu koy dédommager à hauteur. parce que yàqal nañ ko te dara dara dara fekk ko ci léegi pourquoi ñu téye ko ba mu neex leen ñu bàyyi ko. léegi yow loolu noonu amul benn lesson boo tiré ci way yëpp nga way ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaso bi te mënu ñoo fex ba jugé. non non xam nga. Euh, dafa fekk ne que bon le vin est tiré mhm. mënuma ci dara. Mhm. acharnement bi am toujours ci famille Seck. Mm. dégg naa benn journaliste ci affaire boobu boo xam ne xam naa ko moom xam na ma pourtant il a écrit que man j'étais le chef d'orchestre de tout ça man man man maay maay bumi maa tëgg maa tulli maa nangam nangam nangam bi ma ko liiree ma xam ne diw moo bind lii ci man j'étais mu nekk man je méritais la cour d'assises barke siñ Bamba nga xam ne waaw ah, ah, àdduna àdduna bés bu nekk leçon la ci leçon boobu noonu nga way àdduna lan nga mën ok ci sa discographie ba tey ba ma déggee tam ku naan famille bi bu sikk famille sekk bu sikki bu bii ma xam ne loolu yëpp presse bi moo leen ko may rek te man dama ne mais xanaa man man du ma du ma Antoine Da Costa man fii laa dëkk. julit laa te mais pour léegi ma ma ma ne mais pourquoi la presse de mon pays ñoo xam ne sax ñii xam nañ ma ñii sax xamuñu ma xanaa nawet a tax. Euh, euh, ñu boole bëy yeeg xar yeeg ginaar yeeg cuuc yeeg ak mbott yi ci benn néeg Sénégal amatul couvert. c'est pas parce que yow tu es journaliste rek que que nga jox sa bopp le droit de dire tout ce que tu veux. Mm. da gis léegi le net ku ne da ngay dugg ci net bi wax nit lu lu la neex. mais internet baa ngi nii toog acharnement yi. c'est normal. te yéen lépp lu waay di liggéey. ci lay mën a defee lu baax mm. ci lay mën a defee lu bon donc ci lay am tiyaaba ci lay am bàkkaar mm-hmm. dégg naa ne que bu yéen la xaw ma le quatrième pouvoir yéen moom ragal naa ne bu ëllëgee buñ tasee fële ñu bari ci yéen duñu bouger mètre d'accord léegi ah euh, côté boobu noonu mën nañu tëj parenthèse boobu si je parce que lool loolu loolu du du du loo xam ne ay dañu ci dañu ci va-et-vient mais juste fi may ñëw mooy lu toll ni Papa Thione est ce que parfois gisoo ni euh, parfois da def ay erreur de communication par rapport ci yenn sorties yi ngay def parce que kon wax nga ko sànq jéggalu nga ku mel ni Papa Thione légende bi mu doon mën nañu Papa Thione un communicant pur est ce que yenn wax yi itam du woon yoon li tubaab di wax il faut tourner la langue cette fois avant nga koy wax di ci coow ni coowal waa li sekk euh, ci yenn wax yoo xam ne am na ñenn ñoo xam ne sax rafetlu wuñu ko gisoo ni moment boobu itam Papa Thione yoon la mu doon mu mu ci xalaat bu baax a baax. gis nga ñi ko rafetluwul. Mm-hmm. yàlla bu la mayee sax ba nga doyal ba ne gàññ mm-hmm. benn baat dong nga ko mën a wax alhamdulilah. Mm-hmm. d'accord. mënuma lu dul ne sama xol feesoon na. wax naa wax bii maa ngi jégalu. da amee loolu big taf day dal itam loolu c'est normal rek damay laaj mais su ma nekkee sama xol feesoon na ba tax na ma wax wax bii mhm. parce que dañu acharné wu trop sur mes enfants mhm. ba tax ma wax yow rek juuma woon waaye waaye wax bii maa ngi ciy jégalu. Mhm. mais moom mi tamit taxaw na dégg wax na foofu. non dégg naa ko dégg naa mais nag. ña ko wax nag. xoolal buñ ko jàppee ba léegi. non xoolal li ñuy wax naan ñooy ñooy juube. dégg nga boobu wax. ñooy juube. non sama yoon ko ci. parce que je me suis excusé point barre. d'accord ci loolu Papa Thione juum fépp lay am. parce que nit waaw man ba dama ci pataxlu sax. Uh-huh. Euh, ñi nga xamante ne jàpp nañ ni que. Uh-huh. imaam yi sax laay wax. Uh-huh. maa ngi baalu ñëpp àq. parce que Papa Thione da koy wax nit da ngay toll fenn foo xamante ne. da ngay nekk à rabord. doo mën a contrôler sa bopp booy wax nit rek ay juum comme ni ñu koy waxee léegi xam nga juum moom wax dëgg yàlla mm-hmm. mag ndaw ak ñëpp ay juum mm-hmm. parce que du moom kase man mii juumoon naa ci loolu damay pëtaxlu euh, euh, di di di wax euh, di jéggalu sénégalais yi mm-hmm. di jéggalu ñi nga xamante ne ñoom ñooy imaam yi ak ñëpp ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla gis nañ ci seen bopp te li ñu wax neexu leen ñu ngi leen ci baalu ak leen wax ne ay nit kese lañu ay jullit lañ te wax dëgg yàlla que muy imaam que muy ñun que képp ku mu mënti doon wax dëgg yàlla kenn ci ñun bëggul seytaane te kenn ñaanu yàlla it yee seytaane donc nañuy éviter à chaque fois di rafet njort suñuy morom ci suñu ay partenaires di leen jéggalu di leen baalu ak di jaal si leen xam naa ni loolu moom bu ma ko defee euh, Astou Mbaye ak ay professeur Tunkara mm-hmm. Mm-hmm. di ko teg ci loxo Alamine mm-hmm. ah imaam mu mu daal di koy séddale mbokk imaamam yëpp ak muxaddam yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jéggalu di leen baalu ak dañoo meloon rek nekk ci humeur euh, bi taf euh, dafa am benn affaire boo xamante ne il faut ma laaj ko Papa Thione parce que tey tey Thione ni ñu koy mën di waxee Thione du point de vue professionnel qui gère sa carrière parce que tamit on a l'impression que ni Papa Thione c'est quelqu'un qui est très difficile à gérer waaw xam nga nag li ma la wax sànq rek la liberté d'expression mhm. boo gi boo dundee ne que man Papa Thione est difficile à à gérer c'est peut-être vrai parce que xam nga màggatum portugaise comme ba comme ni nga koy waxee mhm. xame nañ mu saf ak ñeex ñeex mu saf buuj waaw xam nga donc nag su fekkee ne ba da nga ko bëgg a dugal ci benn kii boo xam ne moom. gis gisoo ko noonu. danaan la ah ah c' est tout. càkk gin gin waaw càkk gin gin su fekkee ne loolu mooy neexul a gérer. eh ba benn. kon Pape Thione accepte que dafa compliqué. ah non boo ko waxee. Mhm. xëy na ya yaa tax da nga wax ko mais dafa man daal xam naa ne bés bu ne ma dajeeg ni mu ma grand baal ma àq. waaw parce que. gën lay wax rek xam nga ci début bi ah laa leen la c'est un homme ah qui est incompris ah, nit la koo xamante ne parce que man ñëw naa attaqué la Genève. waaw ci benn <laughs> ci affaire wax la nga ne ma mën lu ma ci xam xaw ma ci dara te loolu euh, nit ku la jegewul mënul xam exactement kan mooy Papa Thione. waaw xam naa ne daal ku ma mas a ba yàlla def nga nga nga approché ma di nga ma ne la mhm. ilaha illallah man maa ngi woon ci erreur ndekete waaw parce que loolu laa la wax ma ne la ah yow kon foofu toll dëggantaan yow ndeke papa yoon yow ni nga mel yaa même yaa yaa même pas deux jours mhm. yaa nit ñëw na fii ndeysaan ñu yendu mu mu di génn ci biti woote sama gardien bi moo ko dégg muy muy wax naan kii dina lakk ñu bari man xaw ma ne kii nii la mel. Hmm, moom daal am na ku ma doon waxal. naan ko ndekete kii ya gën ci àdduna kii ya gën a oyof ci ndakam nangam nangam te ndekete il est plein d'humour. c'est comme ça c'est comme ça mais grave. tey tey Papa Thione euh, ku ci mel ni Wally Seck wax dëgg yàlla euh, ban ban héritage ban œuvre nga jox Wally venant de toi ban œuvre moom la Wally yor ban. ta que cela est compliqué. Mhm. ban œuvre mooy lan quest euh, tey jii Papa Thione ban œuvre la Wally yor loo ko bàyyeel. non non non loo ko mm. bàyyeel c'est trop mm. ban œuvre la Wally ci carrière am nii loo xamante ni c'est venant de Papa Thione. comprendre ma la question œuvre œuvre mooy benn. benn son bagage bagage wala bu mu mënti doon lan la waali yor lu jóge ci Papa Thione luñ ne papa lu Papa Thione mën a toog ne lii maa ko jox maay booy xam nga déjà waali boo ko ne jàkk xam nga ne kii bàyyi coono ko loolu kenn waxatu ko ah dama ko xeeb ko xeeb kay <laughs> ah wax leen ci bopp waali ak Papa Thione ñoo nuroo voix waaw ñaareel ba xalal naa ko yoon wi ba yoon wi baax na jox naa ko orchestre bi jox ko bagage yi jox ko nangam nangam na ko acca hmm. man kat waa l'essence bi mu am man su ko amoon man romb naa waaw bi taf waaw big taf waxal. waaw man gis naa loolu. waaw <laughs> big taf gis naa loolu c' est que jusque bi bi bi muy bi muy wax j' j'attendais tout simplement la réponse pour man itam ma mën a mën a mën a mën cee dugg. waxal mais c' est normal. waaw xam nga am na dañu mos a toog nit mu wax ma ne ma waali force force mu way parce que boo juddee sa papa doon waykat jox la orchestre ba pare jox la saal booy wayee donc l' idéal que nga way. donc kon peut-être xanaa loolu yow yaa ma koy yow yaa ma eh, gën a aidé mais man fi mooy ñëw mooy man xam moo tax mu bëgg a poser mooy kon nee nga fi li mu am nii boo ko amoon dépassé nga fii donc foofu moo la moment bi lan mooy sooxe dama ne mhm. Wally sooxewul mhm. dama ne mhm. chance bi ko suñu borom defal man defaluma ko man te gisuma sama morom yu ma ko defal d'accord mhm. am na moroomu waali yoo xam ne bu ñu amoon chance bi waali am dañ leen di dégg mhm. benn kuy sa bàyyi coon sekk mhm. ñaar euh, nga fekk orchestre boo xam ne mu ñoom ak sa papa vingt ans ñi trente ans ñi quarante cinq ans ñi nangam nangam yoo xam ne seen loxo màndi ci musique nga am chance ñëw ñu bàyyi la ak orchestre boobu man mi xam répétition ni mu méttee mm-hmm. li nga ciy daj ñaata ak balaa gars yi di comprendre mën a jouer sans erreur fermer les yeux non il faut du temps mm-hmm. moom bu fekkee loolu yëpp suñu borom yombalal na ko ko destin la mm-hmm. ñu ko koy nongul nag ak yéene ndax ku ne boo sañoon nga am ndono. Pape Thione mës ngaa bind way bind ay way ne Wally am woyal. mësuma laaj way parce que moom. ok daf may won nekk moom tam faramarin la. faramarin la <laughs> waaw. léegi la ñëw laaj nag. léegi parolier plus que toi ça n'existe pas <laughs> léegi léegi léegi dama rek ma ma dégg mu woy benn benn way. Hmm. Wally mësuma laaj papa. lii mësuma ne bindal ma woy bi moom il se suffit à lui te daf may wan ni que moom tam boroomi bagage la waaw <laughs> ok dañ lay dañuy defanteeg yow nag léegi comme daf may wan ni que boroomi bagage la am na bis ñuy wax mu ne ma papa yow sa ceeb nag mënul tàng quoi ma ne ko sama ceeb mënatul tàng mu ne waaw ma ne ko waaye mën naa ko nuggal <laughs> fils bu tàngul jër tam mën naa nugg mais comme il se suffit à lui damay bàyyi bon xëy na euh, euh, stratégie bu baax la tam xëy na mm-hmm. da damay woon ni que daf lay est-ce que du est-ce que tey Wally nekkul di la prouver dara loolu lay wax ni daf may prouver Mohamed Seck. parce que woote bi nangoo woon. non bëgguma woon moo tax woon mu way man je pensais que day nekk dans le foot. Mhm. parce que Wally dafa mënoon football. Mhm. ni mu a way nii non lu ko dàqal football la man man jour bi bi ma wootee ma ma ngoon France fekk moom yi moo am doom. xam na xam naa ne que tey tey moo doon ngénte ngénte moom mi ma woote di laaj ñu ne ma Wally moo jooyloo ñëpp fii man leen Wally lu xew ba mu jooyloo ñëpp mu ne Wally moo woy ñëpp di jooy ma ne a jooy <laughs> dañoo a jooy. ban Wally ñu ne ma Wally Seck moo ci ngénte li rek ñëpp di jooyandoo ma eh, baax na ma ñëw jóge France ne pat néew ma ko tooy na néew ma wow na ñu dawal ay quinze jours rek mu ñëw jox ma benn CD ne ma papa déglul ma déglu <laughs> foofu laa xam ne nekk waali mii way hmm. moom la jox CD bi lan nga wax ci CD bi non j'ai non non non non je l'ai écouté euh, religieusement hmm. ba ko way bi def naa ko lu ne sengan ko ma fu ne eh ba da ba kii moom da ko sàcc hmm. hmm. man nga ko kii mooy man mii ñuul ñuul laa yu ja mu toj ok mais je l'ai écouté na ko bon ok lii moom eh, tegoo gum na hmm. ah, ci yoon parce que bëggu mooy tëb na ko tegu na ci yoon il fut un temps doon def benn interview ci Walf TV ma ne ñu ne laaj laaj ma Wally noo noo gisee Wally ndax waaye ma ma leen boo ba des na mhm. ma des na boobu sama rôle laa doon def mhm. bëgguma ma tëb tëb rek ne ko yow la mhm. mais am na ñoo xam ni ñaawal nañ ko papa coon warul wax leen ne pourquoi muy wax lii yow sa doom di man leen yéen dem leen toog maa ne des na point barre mais est-ce que bi mu yegg si fii seentu woon nga ko lu tax du ma ko séntu yow yow yow yow tam soxor nga. non mais du soxor kii damay damay laaj. lu tax du <laughs> a <laughs> ah. hmm. dina romb fii. bu soobee yàlla. d'accord mais bu lii yëpp amee. Mhm. bu baal ma bisu bu lii mhm. yëpp amee parfois nga dégg nag yenn coow yi ci kawam naka man man mooy seen réaction par rapport. réaction faralaat rek lay def de. boo jiitoo. Mhm. faaw ñu ñu ne la sa ginnaaw gi liyee ci ne. loolu moom na préparé wu mais mhm. xam naa ne bu ànd ak dogalu suñu borom. Mhm. bu ko yàlla mayee gudd fan di dina romb fii yëpp waaye yow ba coon sekk daa warul la jur doom bi ñuy dégg ci ay way mais ça va pas mhm. lu waay di wuyoo koy da koy nuru da koy nuru un yàlla moo moom génération bii tey boo amoon loo doon ajouté ci carrière lan nga ciy na moytu ñii rek à part xoolal na di def yenn yenn acte wala erreur yoo xam ne day may ni ñi ñu ñu ñu wax. Mm-hmm. point barre xam nga nit ki bu xol bi rëyee. Mm-hmm. rafet mu am yéene ci ñëpp. Mm-hmm. mais kooku kay ba ñaanal na bopp. bu fekkee ne que me nee naa ko nag ah di nga parce que tu es le fils de Thione Seck faut jamais l'oublier man li ma daj. pax yi ñu ma gasal ci sama carrière mhm. Wally gisagul dara c'est comme ça d'accord tey jii un Thione d'or euh, lan ngay def pour changer loolu Thione am na double disque d'or ak This la peste mhm. des rappeurs français mhm. am na disque d'or ak sëy tarararantan tan daan boobu ak Africando Africando am na disque d'or bu ko d'honneur bi bi ñu joxoon président Abdou Diouf. Mhm. après je suis le seul artiste africain bu ñu ko joxaat. mais xam nga tey son yooyu yëpp père est-ce que li ñuy wax aussi nit ñi parfois du ñu am dëgg ñun ñi ngi attardé wu di di gën a foncé wu ci mbalax bi est-ce tey mbalax bi mën nañu may disque d'or parce que tamit quoi qu'on di dire le Sénégal est musique mbalax dafa neex ba dee. ci kaw dañ koy fecc fecc mu graaw. lan ngay wax ñi nga xamante ne dañ naan musique. la musique qui n'est pas soutenue. Mm-hmm. musique soo bëggee mu jar da nga koy soutenir. pourquoi la musique nigérienne nekk ci kaw actuellement. parce que y eu parce que y a eu des milliardaires américains. qui sont venus dañ ko subventionné. Mm-hmm. yaa ngi dégg seen gouvernement ñoo ko subventionné. Mm-hmm. merci beaucoup. merci beaucoup encore non xam nga joxoon na ko sax. <laughs> gouvernement baa ko subventionné parce que une fay Papa Thione bu fekkee ne dafa war a booster ki nga xam ne mooy Wally Seck dañuy fay Papa Thione pour mu def duo ak Wally ah pour mu booster ko ba pare gouvernement ba loolu la ñuy def xoolal dañuy tànn tel rajo en Europe tel rajo tel te tel rajo ne leen ñaata ngeen fay vous vous voulez combien mhm. temps am leen mettez-nous nos musiques mhm. mais c'est comme ça qu'il faut faire xëcc benn ay kon xëcc benn kii fii fay ko xaalis mhm. am na ne ko defal duo ak diw defal duo ak Davido defal duo ak diw mais léegi bu fekkee bu fekkee par exemple bu fekkee euh, contenu bi musique bi nga xam ne moom la gars yi di woy je parle pas de de Papa Thione de Youssou et de Morpen parce que ñoom pare la major partie seeni son yëpp ci thème la ñu woy mais pare avec la nouvelle génération est-ce que li ngeen di séntu yeneen ko ciy gis ba musique bi ñu mën ko war a mën a

c'est comme ça. bi toll. tu comprends yàlla. <laughs> degré yàlla buy defar. yàlla rek mooy yàlla. Mm. day jël koo xam ne mag ñi jarul leen dara mu jël ko def ko ci xolu xale yi mas naa dégg benn waaye bu bari xam-xam benn imam mu ne li tax yàlla garaaw génération bu nekk. pakete na ko defar ko ba pare teg ko nee mu ne soo bëggee nekk président de la république mu joxe benn exemple te yàlla namm ko ci yow mu leer ko ne fii ak ñaari at élection présidentielle dina am xam na ne ci diggante bi am na korité am na tabaski. Mm-hmm. am na 31 décembre am na 24 décembre am na. feet yu dul jeex feet yu dul jeex. Mhm. day jël li mu nam moom suñu boroom def ko ci jur gi. xar yeeg bëy yeeg ginaar yeeg nangam nangam mhm. par force nga lekk ci ginaar gi lekk ci bëy bi wala ci ci wala wala ginaar gi wala sax ci mbaam xuux gi na mhm. nangam nangam tu tu tu tu def na ko ca. yow doomu aadama bi lekk lekk nga ko hmm. bu ñu demee ba élection ya jot moom suñu borom la mu namm ca élection ya ak ka mu mu jiite noo xoolal ñëpp ay ko ko parce que def na ki ba pare yàllaa ngoog yàllaa ngoog li mu mën wax dëgg yàlla waaw ku ko naataable rek dafa fekk da léegi nag moom su fekkee ne dafa jël génération di ko tabb ni mu ko neexee hmm. futur footballeur du Sénégal mën na sant beneen tour comme actuellement ni ki nekk ci kaw mooy Sadio Mané mhm. boobu cër la ko yàlla jox kon moo xew mhm. nañ ko ko nangul mhm. ci musique bi non Waly Seck Waly Ballago Waly Thione Ballago Seck sax laay wax moo xew nañ ko ko nangul Papa Thione waay Papa Thione est yow sa jeng fasul parce que yow kese fi woy ñu fi papa bu am doom buy woy de. non man dong fi jur faramaaren buy woy. ah xëy na ñeneen ñi ay. ñeneen ñi <laughs> ma maa ko ñaan dagg ko parce que coono daal dama. Eh, ah. mooy ñi ci jur ak ñi ñi bokk coon sek ndéeg baay. waaw loolu la Ousmane Seck faramaaren la. waaw Assane mën naa wax ne faramaadel la ah. ndax maa ko yar mhm. mu nekk xale ñu jox ma ko mu ne ci man yaayam ak sama yaay ñoo bokk benn yaay bu leen jur benn yaay bu leen jur donc yéen daal maareen ngeen dëkk rek dëkk bu sori te maareen dammel sama maam moom kër moo fa ma ne dee mu nekk ñaari kat ma ne dammel ju kayoor mhm. moom ma yoon dëkk boobu sama maam man sama maam moo doon le chanteur de la cour royale. Pape Thion arrêté ñun suñu maam. Ah. bu bu bu kuréel ay lam. dong ñun ñoo leen ay lam ay ma bu kuréel njéem ay rek la doon jaay d'accord man ci sama maam moo may damel ak damel la may sama maam dëkk bu ñu naan maa mu tudd ko Faramareen. Mareen la ma fa am nekk nii suñuy jaam dong nga fa ne. Mareen la ma fa am lan. bon nañ avancé yow wax waxal yow. waaw mais tontu ci loolu. waxal yow ñu dem ah dañ dem. ñu tontu ah, ñoom ñun kii. big taf ñun ñoo ko sauvé. big taf waxal ñu dem ñoo ko sauvé bàyyi ko foofu ah, ñun ñoo leen sauvé. Ah, Papa Thion nag boobu oobi oh, ma Papa Thion nangul rek ñun ñoo leen sauvé. tey dañuy ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy sa discographie ah. waaw euh, parce que lu ci mel ni euh, wax dëgg yàlla yow. chauffeur bi ah 1980 chauffeur bi ah euh, sëy mooy le pouvoir d'un cœur euh, mi 88. le pouvoir d'un cœur pur. d'un cœur pur waaw. waaw 88 euh, Daali léegi ñu ngi maa Daali 95 ah. Hmm. par Silar favori en 2000 par Silar aussi Boule d'Off Orient Orientissime ah. orientissimo non non bu la neexee nga wax orientissimo bu la neexee nga wax orientissime. ok parce que ñaari album ñaari album yu génn anglais ñoo ko tuddee orientissime. français yi tuddee ko orientissimo. ok ak Diaga en 2010 nga xamante ne moo moo. yaa chanté tey caaxaan yow. ci la leen sagale. waaw xoolal mu a ci ay sagale ah, ah, xam nga comme tey hmm. dégg nga mu ne ci la ñu sagale ba tey d'accord tey jii ci jaaga boobu nga ñu sagalee nga wax ci jaaga ñun li ñu mën a jàpp ci jaaga ah. am ku ko seedeel ndax wax dëgg yàlla tey Papa coon tey jii kan moo ko mën a wax moom mooy kan man mii waaw ah sa xarit ku ne kii mën naa wax Papa Thione de mën naa wax boppam wax dëgg yàlla ne xam ne man maay kan nangam nangam nangam nangam mais mais bon xanaa nga nga basé wu xëy na ci ñaari livres yi nga xam ne moom la ñu bind. Mhm. ci Papa Thione. waaw mhm. ah. tey jii la morceau àdduna. Euh, ah. euh, ça justifie euh, day justifier li nga xamante ne moom la Omar Pène dund. Omar Pène ci wujju yaay am na lu mu dund. tey jii àdduna da ngay justifier la même chose tey bi nga am. ba koy way bokkul bokkul parce que man damay wax ne aduna bett na ma. Mhm. duniyaa safatoo ma sib naa la. ku la jàpp di ko njuuy. Mhm. amuloo kóllëre tekki woo dara. Mhm. boobu sama xarit benn bakkan boo xam ne ñoo daan fanaan même nekk. tous les jours. ñu koy wax Blin Jigal. c'était un pharmacien. alors temps bi muy faatu. waxtu nawet la ndeysaan ñëw na ba Kilimanjaro boobu temps baat baa ngi tudd euh, jandeer mhm. Kilimanjaro bi mhm. boobu temps jandeer la tudd mhm. baobab moo fa doon tëgg mu ñëw ne ma non dama amee insomnie moo tax ma ñëw rek dugguma sax dama ñëw pour mu gis la rek boobu temps dañuy jouer ba deux heures et demie ñu pause trente minutes bu ñu posé ñëpp génn ci biti ndeke booba laay mujjee gisee ak moom engin boobu mu yoroon ci lañ ko fiire daw ka ko fiir ba léegi kenn jàpp ko ci booru canal bi hmm. bon war nag sens ba ba mu woyee ak sens ba ma woyee bokkul du bés bu nekk leçon la ma fii hmm. bés bu ne leçon la bés bu nekk nga dégg lu bees bés bu nekk nga gis loo xam ne nii da naan c' est pas donc kay. Euh, mu ngi noonu daal mu tey jii Papa ak ay problème am problème mu penc mi problème yëpp réglé nga mu penc mi euh, ñu ngi ci xam nga dafa nekk loo xam ne xanaa ma baamtu ko waat man comprendre ma nga wax ak nit. ngeen bindante ay kayit pendant presque douze ans bu weer mu fay la xëy nga xëy xëy rek am beneen proposition bu bu duun mhm. ya nga ne kii foog mu génn pour man c'est pas logique mu wóor na ne que kii def na fi ay dërëmam mhm. te bi may ñëw fii dara nekk fa woon mhm. waaw ma jàppale itam. Euh, manque de communication la woon. amul sens daal ci non am nañu communication maag moom. Hmm. xam man dama wax ne. dafa dem ba ci biir bëgg cenc ñaanuma yàlla ñu ne boîte de nuit bi Thione Seck moo ko moom jamais doo ko dégg. Hmm. waaye Thione mooy gérer boîte bi mën mën nañ ko dégg. parce que sama liggéey. mënuma ko def ci mbedd mi. xanaa du ma jël si samay matériel ak samay musicien ma teg benn podium naan acca dañuy musique acca paas bon bu kuy fay. waaw léegi booy def musique am na foo koy defee. Mhm. dégg naa ñu naan musique dafa xaraam. Mhm. xaalis ba cay génn dafa demul màkka demul li li li ma ne mais ñii ñoo bari xam-xam waay <laughs> mais yàlla mu la jaaral ci yoon bii hmm. li may li may def man yàlla la neex hmm. yàlla la soob mu jaaral ma ci c'est vrai ou c'est pas vrai xanaa ñoom ñuy wax loolu xanaa léeg-léeg du dañuy fàtte yàlla ak lu yàlla nam ci nit waaw am na benn woykat nag bu tudd coon sekk nee na booy def ko romb nga ne waa nga ne du waaja hmm. léegi waaja romb la te doo ko xam day man su fekkee ne man li mooy sama métier wax naa leen sànq nee ne ku nekk li ngay liggéey ci affaire journaliste bi. ci ngay jaamu yàlla ci ngay jaamu yàlla. ci ngay def safaan ci yàlla wala ci nga koy ñàkk. Mhm. waaw Thione Seck li mu woy yëpp mu ngi lu ba nee nañu lu mu wax boo ubbee alxuraan fekk ko ci. Mhm. man kay man kay kon maa ngi yàlla kay su basé foofu même su musique aramé xëy na ma ma dafa bind ñëpp sax te yemalewul. waaw nit boo ko bëggee dimbali mais ca la mu nekk ngay wàcc fekk ko fa pour dimbali. bu suñu borom jaaree foofu. Mhm. jaar la ma foofu xanaa xëy na léeg-léeg sax on bu ne am na exception. waaw ba xëy yàlla baax na te yàlla mën nañ ci bénéficier wu ñu. yoon bi mu bëgg rek. Mm. mais léegi ma ñëw ci penc mi yow su fekkee ne yow da am coow ak sa locataire. retard de paiement deux mois. Mhm. deux mois rek. Mhm. te retard bi fekku la Sénégal. Mhm. mu la fekk en tournée. te am na montant yoo xam ne mënoo ko envoyé. bi ñu ñibbisee bi ñu ñibbisi dugg nañ ci troisième mois bi. ma wala ne la kaay ñu toog sama avocat ngi toog ak sa frère ñaata moo doon retard bi nangam am te yow sama ginnaaw dem nga ba tribunal yéeg ko wàcc ba ne man je me sens euh, invincible kenn mënalu ma dara nangam nangam damay jaay ne man vedette la te yëguma tinuma man nekk ma sax Sénégal ba ñu jox la ne la kon bu ñëwee nga daa koy expulsé waaw bi ma ñëwee man na kaay ñu waxtaan lu tax nga def lii nga ne ma bon tu pensais que tu, tu, tu devais le faire ñu wax daal ba gindikoo man la am montant bi retard baa ngi nii jeex na léegi nag ndekete ordonnance boobu dañ ko waroon a kase xaw ma ndax comprendre li may wax am boobu mhm. dañ ko a kase man xaw ma ki dara le fait que nag ñu bañ ko kase moo koy permettre moom saa bu saa bu neexee rek mu mu mu ñëw rek na ma dama tëdd rek ñu ne ah, ah, ay huissier ngi fii di génn bagage yi lu xew ñu ne non waaye ñu na dafa bëgg nga génn ah pourquoi may génn man man amal moo ko cent mu ne ah nga génn loolu la léegi nag ba ñu waxtaanee ba juboowaat maag yow te te yow yaa ma loué ñu defaraat beneen contrat sous seing privé mhm. reconduction de contrat mhm. ci diggante bi ci contrat boobu lépp nga ci oto yow lépp nga ci ñaari million ci xaalis mhm. terewul yaa ngi ci fayoo ko weer ci diggante bi bi nga amee proposition bu neex boobu ak ak xawma ban groupe nga bëgg ma génn léegi nga ne contrat bi ñu renouveler maag yow baaxul ah lii rek la de. Mm-hmm. nga ne bi ñu renouveler renouveler maag yow baaxul te yow leb nga ci oto di ci fayoo ko weer bi te diggante ba ñu ko ba ñu ko renouveler ak léegi mat na quatre ans et te quatre ans yi yëpp yaa ngi fayee ko man bu desee ci penc bi rek bëggatuma penc bi parce que coow li ci am fépp fooguma ko woon. c'est Mouhamed qui sax. waaw ba fo fooguma woon man sóor naa këll këll ci penc mais tam lama fa defoon non kon nañ ma ko delloo. lii rek na léegi nag mu ngi ci loxo yoon ñu ngi xaar ak ban. ak benn ndax jàpp naa ne que euh, waa problème mu. problème parce que Guinteus il paraît kenn ki ci bokkoon moom it yoon teg na ko hmm? mooy ñi nga xam ni ñoom la Guinteus taxawoon ne yéen ci ñeen yéen yéen yéen ñooñu contrat bi ci yéen la nekk ba xaalis bi ba ba bërki dem ñu ngi gis ci presse jàpp nañ ci kenn pas comment il s'appelle que genre Benoît je sais pas mais est-ce gisoon loolu itam du tax li ñu waxoon gën a gën a gën a suuxi ak fan la ci toll est-ce yaa ngi ciy am ay écho ba léegi. déjà boo waxul woon waxu ginc sax man sama xel génn na ci ginc mm-hmm. xaw ma gin xaw ma ginc xaw ma gintee mm-hmm. sama xel génn na ci moom xam nga bu fekkee ne da nga ne man dama la war a rembourser mm-hmm. say frais waaw man dama comprendre parce que yow yaa yónni kii yow yaa dëkk Canada yaa am yaa am këyitu canadien yaa moom la restaurant bi nekk au Canada mm-hmm. yaa yónni kii mu ñëw ci man pour ñu signer contrat ci tur yow sa societé mm-hmm. yow yaa ko jox avance bi mu indil ma mm-hmm. waaw léegi war nañoo dem ñun Canada mais yow tam da ngay sukkandiku ci tournée bu ay Gambien organisé pour wàññi say frais bu ñëwee ba Amérique bu ñu tëggalee Gambien yi ba pare. ñu def benn suu ba Canada soo ko ñibbisi te bu ñuy def soo Canada dañuy delluwaat Amérique. parce que billets yi Gambien yi fay dakaar Gambie Dakar États-Unis états mhm. waaw ubbil naa la boobu brèche ndax dama la ko yéene. Mhm. pour frais bi gën a yomb. waaw yi gën a yomb. ok ndax moom wax dëgg yàlla man yéene woon naa ko. waaw léegi ñu dem ba ci biir on n'a pas eu le temps de déposer des visas. Mhm. amuñu visa xam nga kon amul benn frais visa. nel benn. waaw. 21 jours ouvrables moo ci amul woon. Mhm. ok léegi voyage bi ñu waroon dem. ba Canada amatul donc y' a pas de billet d' avion. neel mhm. bu ñu demoon tey ji au Canada hôtel ya muy fay nangam nangam nangam mais comme demuñu xam nga kon amul hôtel. Mhm. accommodation bi nga xam ne mooy mooy ànd ci boo indee groupe nangam lieu ay hôtel fii ok ak yenn les perdium ak tout ce qui mhm. s'ensuit amul. divers yi. amul. waaw yow mi nga xam ne yaa yónni kii mu ñëw mhm. entre temps am ngeen problème yéen ñaar boo xam ne c'est diamétralement opposé ak man sama bos mhm. ba yow nga suur ko yow nga suur kii di aw ci yow directement yaa mhm. mu jaral la nga dagg sa fii ci Ndakaaru ànd ak sa benn cousine ak mon ami Mathieu Fall ñëw xamul fan la dëkk Edmond Sadio boobu xamul fan la dëkk ci Maacu Fall la dem Maacu fàll la ko indi fii ci kër gi mu ne ma man maay Edmond Sadio génne contrat wu saal ba ñu waroon tëgg jox ma ne ma pour firndeel la avance ba ñu jox woon ca saal ba ci sama compte banquer lañ ko dindee mu ngi nii mhm. waaw léegi mu ne ma kii moom dootuma sëqati ak moom dama ñëw pour jël si sama avance yow nga wax ma loolu mhm. yow yaay Edmond ah. nga ne ma da nga ñëw pour jël si sa avance ma ne la ah d'accord naa mais dama lay ñaan rek par respect a kii bàyyi ma ma woo ko au moins mu fekke bi ma lay jox sa avance ma ni Mouhamed Seck génneel nga wool ma diw mi nekku mu ñëw bu fekkee ne mu ngi fi ndax yow yaa ngi fi mu ñëw dafa dugg si nuyoo rek commencé la saaga yow saaga keneen ku ci bokkoon kooku tam gis boppam ñu bëgg a xeex ci biir néeg bi ñu ne cas gincës comme moo indi coow li ñoo génn ko néeg bi parce que ah, ah euh, li mu def dafa teggu ni wul daal. Mm-hmm. parce que su ma ko wooyee te mënoon naa ko ma ñëwoo. Mm-hmm. sama soxna mu ngi toog yow yaa ngi toog. Mm-hmm. benn euh, promoteur bu tudd ma Diop. Fall mu ngi toog ak secrétaire am. ak man te maa ko féete mag fuuf man maa ko woo mu ñëw bu ñëwee dugg si rek commencé la saaga yow commencé wax ma Diop bu tu es un nangam nangam ba ñu ñoom ñaar ñu bëgg xeex xeex ci biir néeg bi damay jàpp ne kii amul respect génn ko néeg bi ma ne la am sa xaalis mën na nag le fait que yow ma jox la yow sa xaalis dama ko contre léegi yow laa faral te yow man maa ngi lay soog gis mm-hmm. te moom xam naa ko bu yàgg mm-hmm. mu ne la fait que man ma jox la yow sa xaalis te moom mu ñëwoon signé si contrat bi léegi il faut que mu won ma ne ko moom moo nekk dans ses parce que moom moo signé si contrat bi ma ne ko mais. moom ci impolité sam moo tax joxoo ko xaalis bi moom directement. waaw ma ne ko mais yow même boo signé see contrat bi ñu taxaw ci buntu studio bii bii ñu toog nii mais contrat bi c'est au nom da nga ko siñe au nom de. donc de moom de boobu bu ñëwee c'est sa société da ko signé au nom de sa société. mais tey ba nga ko wooyee ba mu ñëw même bu mu calmé ce que tey jii doonu woon yoon ñu jaarale xaalis bi ci moom encore ba mu dem ci ñoom. non dama ne la kii ñëw yow boo ñëwee yow en tant que yow mi nga xam ne yaa ko mandaté woon contrat bi ki sa tur la nekk yow avance bi mu ma jox ci yow yaa ko ko envoyé wan nga ma kayit bi. segam moo am boobu droit estomac ak yow moom moom bu amee droit cent yow am yow am nga ki droit téeméer parce que contrat bi c'est au nom de ta société ça a été signé au nom de ta société yow kon yow yaa ci ëpp dogal parce que d'abord sax sa tur moo jiitu ci contrat bi ak sa ak kon xaalis bi delloo nañ ko waa ji. waaw euh, jeex na jeex na parenthèse bi waaw mais moom dafa ne le fait que ma delloo avance bi waa jooju te nee na moom laa ko waroon jox moo indi problème bi su ma revenir nag ci ay charge yu muy laaj. li ma la limal yëpp. ça fait quarante ans quarante cinq ans sax may dem di voyager ko ñëw. concert visa la billet d' avion per diem accommodation ak yooyu noonu la loolu yëpp dara amu ci ban charge laa koy remboursé ki nga xam ne moo ko mandaté woon mhm. moo joxe woon avance su ba moom nee na bàyyi na topp ñu dara mhm. wan jox na ma këyitu contra wu saal bi mhm. ak bancaire bi nga xam ne moom la ñu joxe ak compte ci ci ci euh, euh, pour saal bi pour concert ba am waaye léegi yow yow kon yow bu fekkee ne que yow yow yaay giñ Cees yow léegi loo mooy topp. xam nga nag Papa Thione yow star nga maa la koy wax sànq mami ko sax sama rakk ji maa ngi koy nuyu moom moom moom moom faaw kaw carrière am ñu gën cee teg loxo seen TV dinaa jub ci seen kaw dama bëgg ngeen defal ma sama rakk ji ca kaw parce que dafa am talent mais Papa Thione waaw waaw wax dëgg yàlla dafa am talent Papa Thione ci sañse yi Papa Thione ci veste bi <laughs> Papa Thione ci lépp bu jot da ngaa xew de. nee na bés bi star nga yow foo ñëw jël ñu vedette bi sàcc ñu vedette bi jël ko yow. Ah. bu fekkee ne seen anniversaire bi ngeen di wax man soluma costume jour boobu man saarien laa sol génération bi nag yéen ay peew ngeen xam. peew ak euh, euh, xaw ma ak bagage yooyu man saarien laa sol bu fekkee ne loolu mooy yóbbu buzz. ma xam ne am ngeen xew ndax. El Hadj Kébé ñëwal na ma ci cinquante deux. El Hadj Kébé waay cinquante deux yaa ngi doon gis ni ñi la gars yi doon tooñee ci biir internet bi. ah yaa ngi doon gis ak challenge bi. moo tax bi may tourner les trente deux clips. waaw sol naa ci pàcc. ay ba ma jëm ba ma jëm. laay lay la la bu ñu jëm. sol naa ci pàcc. ku laaj demale sa kanam mu dal de da nga def neuf cent et quelques clips ak cent nekk Papa Thione. nekk la parolier journaliste mag baa ngi ni toog fii confrontation tukuleel kuréel borom jigéen ñi bu kuréel njéeme <laughs> Big Taf ay ca waxal. pour la première fois ma toog papa. parce que lii nii bibliothèque la. da nga may fay nag yow. waaw am problème. waaw da nga tamit jaajëf kontaan la eh, eh, ah. eh, ah, sa xarit la de. ak sama jigéen Mariam Ndiaye. daf ma arabtu sax moom. xam nga bu ñu waree bu ma waree tourné ak waa groupe ku ci mel ni yow ku ci mel ni Ismaïla Lo ku ci mel ni ñoom ñëpp dañuy day ñëw di ma arab naa ma xam nga da nga fexeel ba boo demee na dee man moom. c'est pas la ndax man nga fi fekk. man faramaaren bi aussi. Une confrontation la woon la seule émission qui pense à vous et vous incite regarder la télé tey damay euh, jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom laa àndandool ci émission confrontation bi muy Big Taf ak euh, Libaas ak ñi nga xamante ne Père euh, ak ak ak ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax ci émission bi di gërëm Lamp mi coordonné à chaque fois Père Seck euh, di gërëm Leila Couture moom mooy génn à chaque fois ci li may sol euh, wa Black Beauty Hair ak ñi nga xamante ne moom mooy Amel Beauté Amelia moo koy gërëm bu baax Marie Ange euh, di leen jox dig daje ci seen beneen plateau confrontation incha allah dans 15 jours d'ici la portez-vous bien et regardez la 2STV